fii ni ñu ko waxee mbokk yi niñ ko waxee ci bopp xibaar yi ñu di ko génn ci yaatal gi euh, jàpp leen ko xibaar bi daanu na Moustapha Cissé Lo dàq nañ ko ci biir parti bi di APR euh, bëkk démb la ñu siiwal ay saaga yu mu tifaare ci internet bi loolu nag moo loon kuréel gi ñu dénk seen kàcciri euh, muy kuréel gi amee wàllu discipline yar bi ak teggin yi ci biir parti bi ñoom nag ñoo ci daje ci ki ci maanaam ci tegtalu président de la république ñoom itam ñu def ko ci daar daar ci daanaka jooni jooni la ñu jël yooyee dogal ba dàq kii di Moustapha Cissé ci parti bi Euh, dañ ciy déglu compte di leeral ci Babacar Fall commission discipline di commission biñ dénk wàllu yar gi ci biir APR nee nañ dàq nañ Moustapha siselo Lo ci biir. parti bi te yit ñi ngi artu ñeneen ñi nekk ci biir parti bi ne képp xam ni yëkkati nga kàddu mbaa am taxawaay bu jëm ci gàkkal li nga xam ne mooy daru parti bi li nga xam ni moo dal Cissé dina la dal itam réunion bi kon ni ko Macky sax sàkko woon démb noonu lañ ko amee ci nu mu gën gaawee ba tax tey ci yor yor gi ñi nga xam ne ñoom ñooy commission discipline boobu daal di def seen réunion ña ca woon ñii la di Ablaye Badji Omar Gueye Abdou Mbow Awa Gueye Abdoulaye Daouda Diallo Abdourahmane Ndiaye ak Benoît Sambou ñoom ñooñee ñoo def réunion bu jël dogal ni gannaaw seetlu nañ ni li nga xam ni moom mooy taxawaay Moustapha Cissé Lo ci fan yi ak kàddu yi nga xam ni da ko yëkkati teg ko ci ñenn ci biir APR googu ci lañu sukkandiku nag daal di wax ni dàq nañ Moustapha Cissé Lo ci euh, li nga xam ne moom mooy biir parti bi ndax nee ñu saaga yooyu ñu dégg te mu jàll ci euh, réew mi yëpp nee ñu loola dafa gàkkal seen parti bi di Alliance pour la République di parti bi nga xam ne moom la Macky Sall euh, jiite ba tax na ñoom daal dañoo sukkandiku ci article yi nga xam ni ñooy article 3 article 4 article 14 19 ak 20 bi nga xamni ni mo sartal li nga xamni ni moy parti bi di APR ngir dal jëfëndiko li nga xamni ni moy mooy dogal boobule nañu tam sukkandiku nañ ci article 25 ak 26 bu règlement intérieur parti bi ngir seetlu ni dal Moustapha Cissé Lo mi li mu def ab dàq dong mo ca toftalu ba tax ñoom ñooñee di commission discipline APR desse seen réunion tay bi nekkon sen camarade ba woon noonu lañ ko tuddee léegi Moustapha Cissé Lo bokkatul APR génn na ci. Euh, ci lu ni mel sax tax nañu amal ci taxaw seetlu ndax gis nañu yenn saaga yi euh, ci internet bi euh, yoon da koy aaye kuñ ci teg loxo lan moo la ci mën a fekk dañ ciy ànd ak jàngatu Mouhamed Ali Mouba. bu ñu sukkandikoo ci maître Aboubacry Baro loi bi bañ na kuy utilise xarala yu bees yi ngir def yenn yi moo tax képp koo xamante ni def na ko loi bi dina daanu ci sa kaw. pourquoi on xam ne diffuser ay ay sous quelque forme que ce soit écrit message wala ay photo woo xamante ni dafay ne affaire kii xénophobie wala affaire sexiste c'est-à-dire que des qui kii fii la wala fële di koy wala di wax yenn wax yoo vraiment euh, yoon nee ne mun nañ tëj nit kii euh, si peine boo commencé na six mois euh, ba ans euh, bu loolu weesu aussi am na loi 2016 euh, aussi ci code pénal bu même aussi qu'est-ce qu'on xamante ni aussi dañ le ko def euh, mën nga porter action bi devant le juge pour pour diffamation te bu Boba aussi pratiquement même peine yi ñooy ñooy ñooy ñooy ñëwaat. ci affaire u dans Lo bi nag daanaka dañoo njort ni moom dafa saaga ay nit ci loolu maître Aboubakri Baro ne enquête mun na leeral. yaakaar naa ni procureur euh, bu fekkente ne dañ ko saisir dafay euh, ordonné benn enquête boo xamante ni aussi day saisir soit police wala gendarmerie. Euh, daanaka si affaire bi na sa jekk en général que cybercriminalité moom la ñuy parce que ñoom ñoo gën a am ay jumtuwaay. bu boobaa ñoom ñooy déterminer kan moo envoyé vidéo yi ak. baat bi voix bi kii prononcé moo yooyu koy wax kan la boobaa bu ñu ko déterminer devant le juge aussi euh, képp koo xamante ni dañ la reconnaître coupable yoon dafay daan daan ñi ma la wax sànq. nu mantamel brigade bi toppatoo wàllu euh, cybercriminalité mën na def liggéeyam ci wàllu woowule su ko defee mu xam bu baax a baax responsabilité ku nekk. Euh, ponk boobu sax li ko waral mooy mbiru Moustapha Cissé Lo moo taxoon ñu indi leen taxaw seetlu boobu euh, ñun nag ñu ngi jéem a jokkoo ak moom boobu ak léegi waaye mënuñu ko jot euh, jombul fi rek xibaar yi di daanu ñu mën a jot Moustapha siselo Lo ngir xam lan mooy xalaatam ci daq giñ ko dàqee ci biir APR ci wàllu yoon la ñuy des ba tey ak mbiru phobie yi ñu toppee woon Thione Ballago sekk te mu ne woon da koy dabu boobee atte gannaaw bi ñu ko daanee lu toll ci juróomi at yi ak juróom weer yoo xam ne da koy tëdd dabu googu nag moom nee na génn na ca ah, lu waral mu génn ca leeral yi ak El Hadji Ndiogou Diène ay mbokkam ak i aw am ñoo waxtaan ak moom tax ba njiitu Ramadane teg ci suuf li mu naroon wéyal xeex bi ci wàllum yoon na teewul moom Thione Seck xam ne ne mbirum phobie googu nekk na loo xam te ne day woy di gàkkal deram gir dundam gannaaw verdict bi cour d'appel bu Dakar joxe ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juin bi ñu weesu daan ko juróom juróomi atu kaso yoo xam ne juróom-ñett yi koy tëdd moom woykat bi dafa jëloon dogal ne nag day woy xeex bi ci wàllum yoon daal di saisir cour suprême ci pourvoi en cassation ñu xoolaat mbir yi taxawaay boobu nag li ko waral moo di moom woykat bi dafa jàpp ne dafa set ci mbirum phobie yooyu taxoon koy jàpp tëj ko kaso diiru ko juróom-ñeenti weer Thione Seck ne lii gën a wane ne deful dara ci mbir mi moo di ne amul benn phobie boo xam ne gis nañ ko ci sele yi nga xam te ne gendarmerie tey woon na ko tax sax ba mu jàpp ne moom ci boppam lañu nax ci mbir mi ëttu àtt bi di cour d'appel bu Dakar jotoon nag sax eh, setal ci ñaari mbir yuñ ko doon di tentative d'escroquerie madame, di jéem Actamit, njublang ak tamit blanchiment d'argent di setal xaalis taxawoon bu cour d'appel daal di digle ñu delloo ko koppar yu toll ci 32 millions di fanweeri million, ak ñaar yi nga xam ne dañ ko gisoon ci këram bañ koy jàpp teewul nag daan nañ ko ko bu ci ci sunu xaalis ci ci àtte bu njëkk ba tribunal grande instance bu Dakar daf ko daal di woon seetal daal di ne lu ci koy toppee ndaxte dañoo gis ne dafa am ay rëq-rëq ci procédure bi wante dogal boobu parquet ànd ci woon waraloon mu daal di woon def appel ngir sàkku ñu àttiwaat mbirum Thione Seck dañu dem fële ca tëng géej ñeneen ñu bëgg ñu àtte leen mooy ña dëkkee ca cité apix fële ca Tivaouane Peulh ah, ñoom nag promoteur ba leen jox terrain ya la ñu jàpp ne bàyyi ba mu leen jox dafa baaxul eh, ba waral mbir ma yóbbu nañu ko fële ca Descos ngir ñu indil leen ci ab àtte lamin Dia moom moo amee kàddu yi ñu ci loru ah, dañuy déglu lim ci wax dénk ko Abdou Diouf Diagne dafa am gars yi nga xamné ne ñëw parce que ñun dañu euh, déplacer ci autoroute à péage muy piste 1 piste 2 ak euh, les vulnérables état Sénégal jël suñu kër yi tabax autoroute à péage jox ñu ben titre foncier immatriculé ci suñu def ko sous le numéro 6043 R dagg ko 2039 maison ñu ko bay ñu espace yi nga xam dañ ko wara tok suñu doom yi am fuñu ñu yoy ñu xëy un jour ay nit ñëw diko dag daj te site de recasement ñu ko dag parce que war ko jaay alors que dañ ko morcelé jox ko ay nit ñëw dag ko dafa am ci biir affaire boobu dafa am ñoo dem benn privé dagg ci biir site bobu 63 6043 R bi pour le moment, on ne sait pas. Bon, pour le moment, euh, d'après les informations que j'ai, si moi j'ai fait l'objet de trois plaintes, parce que nous aussi, nous sauvegarder l'espace beaucoup parce que nous, nous, parce que nous, euh, nous, ah nee nañ ñun dañoo ñëw jël suñu espace boobu di ko commencé jëmmal di fa def ay bangal yooyu te ñoom nee ñoom moom foofu loolu da la ñu porté plainte non ñoom mënuñu ko moom parce que titre foncier 643 R ñun ñi xam ne lañ déplacé autour à péage waxoon waxoon nag ñun ci projet boobu buñ ñu ko joxee léegi ay nit jógee fële am ci titre foncier privé sur un titre foncier de l' kooku dañuy xool lan moo tax il faut que la vérité ci wàllu suuf la ñuy des dem ca Bambey ñu dëkk ca quartier bay dëkk foofa te ñu bëgg leen faa toxale nag ñoom ne duñu fa jóge euh, foofa tax na ba collectif bi ëmb ñiy xeex euh, lépp lu jëm ci suufus Bambey jàppale leen ci boobee xeex euh, ñenn ci ñoom nag li ñu xamle mooy faaw ñu yóbbu mbir mi ca fa mbaxana doone benn ca cour suprême ngir ñu àtte leen ci dañ ciy déglu Babacar Diouf ci leeral. boroom kër yëpp génnoon taxaw ak seen i jaboot ne li nga xamante ni moom lañ tuddee jaay doole bi nga xam ne maire bi mu leen ko bëgg a jaay doole duñ ko nangu ñoom nag li xew moo di danoo def lotissement ci bi ne ñoom ñi nga xam ne ñoo dëkkoon ci quartier bay dëkk dañuy jóg ci ñi nga xamante ni moom lañ dëkkoon dem ca gannaaw loolu yi ñu ne duñ ko nangu benn yoon ma Mbagnick Gningue mooy wax ci seen tur. benn jour jooju ñu ne dañ leen di lotiseel te biñ leen di lotiseel dañ ne leen euh, kuñ fekk fi nga nekk doo bouger dañ leen di alignement la dañ leen di orienter ku nekk ci ci mbedd di nga jóg ku nekk ci foo xam ne place réservée la di nga jóg. léegi dañoo dem ba arrivé un moment bi nga xamante ne dañoo lotisé dikk fa dikk laaj leen ne leen kaay leen ngeen fay numéro yi génn ñu dem fay ñu njëkk ku nekk ñu jël la foo nekkoon nga xam ne ni yàgg nga fa def nga lu mat 15 ans mais dañoo ñëw un bon jour ne leen yéen ñëpp da ngeen di ku ci nekk fi nga nekkoon dañ lay yëkkati te ñoom dañ ne première loo bi mu di xeex boo xam ne nii nag naruñu cee wet ndaxte benn kuréel boo xam ne ni ko yëkkati mooy xeex ba suufu Bambey kenn du ko saax-saaxee judd na Jibril Diagne ci la bokk xeex bi du doon point de presse dong du ay kurfeñ yu ñu dóorante tamit njëkkee ci nga xam ne ginnaaw yàlla moo fi représenté le président de la République mooy préfet bi moom askan bi la fi nekk di dinañ dem wax suñu njàmbat tawar ko ko pour mu jëm ci ay saafara loolu benn la ci pàcc yi am na yeneen pàcc encore yoo xam ne danañ ko jéem ci wàllu yoon lépp loo xam ne yoon may nañu ko ngir li nga xam ne mooy ay décision wala ay délibération dina tax maire bi dellu ginnaaw danañ dellu danañ fa jàpp maire ne dina yéey yàbbi ci mbir mi nga xamante ni moom fi mu nekk nii ci Bambey moom moo lëmbee waxtaan yi xamante ni moom lañ fiy dégg Bambey RFM Babacar Diouf RFM rajo askan wi wàllu ci wàllu santé muy wérgu yaram ci la ñuy daal di dikk dal ak ponk tey ji aju ci jàngoroy mbas mi dañ ci ànd ak docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. ci juróom-ñett téeméer fanweer ak juróom-ñett test yu ñu def juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif ci ñooñu am nañu juróom fukki cas ak ñaar ñoo ciy cas contact ñaar fukk ak juróom-benn ñoo ciy cas communautaire ka communautaire mooy ñi nga xam ne fiñ ko jëlee dañ ko xamuñu ku leen ko wàll ci ñooñu nag cas communautaire yi Touba am na ci ñett Xombol am na ci ñaar Plateau am na ci ñaar Thiès am na ci ñaar sangalkaam am na ci ñaar Yoff am na ci ñaar Almadi benn Fann benn Guédiawaye Ben, Joal Ben, Kaulaf Ben, Liberté 5 Ben, Liberté 6 Ben, Mbao Ben, Mbour Ben, Ngor Ben, Parcelle Asseni Ben, Padua Ben, Saint-Louis Amna Ben, Malad malade ak juróom niente, wér te Inshallah, Dinayugin, dinañu Fuk fuk ak Nyent, Nyon nek ci service réanimation Nyent ñett doomu Nyon nyak sen seen niki dembu dimanche juróomi fan juillet bi ñu nekk ñeneen ñi ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk Sénégal jot na wàññi juróom-ñaari junni ak ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu nag ñeent junni ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñeent wér nañu téeméer ak fanweer ak juróom-benn ñoo ci ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak ñeent téeméer ak fanweer ak ñaar ndax duñu dellu ci confinement ñëpp tëju ci biir kër yi ndax jamono ji kat jàngoro ji li muy yóbbu ci ay bakkan bari na ñiy dëgg jàngoro ji itam bari na te gis nañu ne bu dakkul dafay gën di law te musiba lay doon ci biir réew mi laaj boobu nag euh, kii di expert ci wàllu santé publique di Cheikh Mbacké tontu na ci xam le ni dellu tëju ci kër yi moom du xalaat ndax mënul dara ci jàngoro ji ay leeralam dañ ciy ànd ak Salimata Aw mbas mi fi mu toll ñi nga tax na ñu ci bëri di xalaat est-ce que duñu boolewaat tëj ñëpp seeni kër kii nga xamante ni xam-xamam dafa màcc ci wàllum santé publique ni loole xel xalaatee su ko li ñu war a def rek mooy ñaax askan bi wante itam boole ci fulla gu mat sëkk professeur Cheikh Mbacké Lo depuis ba lii commencé man damaa bindoon ab bataaxal boo xam ne dama ko yónnee woon ci taskatu xabaar yi wone ne man ànduma ci ñu confiné population dama ne situation bi fi mu toll nga xam ne moo ko mën a régler mooy que ñëpp jóg mu nekk benn sursaut national mu nekk loo xam ne day nekk déclic si ñun ñu xam gravité situation bi te loolu li koy li ko mën a def mooy ñu travailler ñun ñëpp dañ cee war a liggéey muy leader d'opinion yi muy sëriñ si nga xam ne am nañ dogal bu rëy rëy ci réew mi tey sëriñ si jot nañu wax ndaxte nag fi ñu jëm nii du loo xam ne baax na ci réew mi ñi ngi ñaan sëriñ si ndax ñu wax man dey parce que xam naa ne senegal sëriñ si bu ñu waxee dana am ñu baree bare ñu ci ànd te loolu lu am solo la ci réew mi. cas communautaire yi nag nee na boo mooy wut yëf ya dana gën a yokk rawatina nag tabaski bi nga xamante ni ci la ñu jëm. bu ñu bëggee cas communautaire yi en tout cas wàññeeku lieux publics yi moom il faut ñu jóg imposer banques yi imposer banques yi ñuy tax parce que au départ doon nañ ko def mais bàyyeeku nañ joxeetuñ gel defatuñ dara respecté tuñ këy loolu yëpp dañ ci war a wax ci supermarché yi même chose ñu demander supermarché yi ñoom ñëpp ñu fexe ba nga xam ne tey dañuy respecter distance bi. saa su ne duñu xëy te dégguñu li mukk ñi ñàkk seen bakkan professeur bi nee na ci li ko ci gën a metti rek mooy na taxu sénégalais mel na ni virus bi nekkul ci mbedd mi. Euh, dañuy des euh, ci wàllu wér-gu-yaram dem ca ndar foofa mag ñi nga xam ni ñoom ñooy hémodialyse yi ñoom ñoo fa am ay jafe-jafe ndax ñàkk gu ñu ñàkk ay garab yi ñuy jëfandikoo waaye itam euh, machine yi nga xam ni moom la ñuy fajoo daanaka juróom benn fukki nit ñi ngi xaar te boobaak léegi mënuñ gu ñu toog faju loolu yëpp nekk ay jafe-jafe ba tax ñuy sàkku ci kilifa yi ñu gaawe leen ci ndimbal Nabi Sylla ñiy dund ak feebarub roñoo nekk ci jafe-jafe ju metti ci jamonoy coronavirus bi lee lu ëpp juróom benn fukk ci ñoom nekk ci liste d'attente ci l'hôpital bu Ndar. ñu am aussi lu mat soixante-dix pour ne pas dire soixante-quinze malades yu nga xam ni ñoom amuñu place. par exemple dañu toog rek di nekk yàlla moom leen. seeni njaboot daanaka amatuñu koppar ngir faju suñu dégloo kàddu yu jóge ci Banda Sarr di njiitu kuréel bi leen ëmb xam le ni lal yi doyul ci l'hôpital bi lee. 21 lal ci ñaari fukk ak benn yooyu 15 yi maanaam fukk ak juróom ñoo ci fonctionnel moom bis bu nekk dañuy jël les malades do benn yoon lañ leen di bën jël donc mu nekk du nga xam ni 40 malades yu nga xam ni dañuy euh, dañuy tourner te kenn mënu leen jël normalement. njàqare ci jamonoy covid-19 bi gën a yokku ndax jumtuwaay yu ñuy jël ngir dem ca bërëbu fajukaay yi lee léegi pour du transporter leen dañu am problème mu ambulance ku nga xam ni dañ lay war dialyser nga am si problème mu encore transport nga xam ni covid bi bu duggee sa centre boobu moom jeex na ñoo ngi tàllal loxo Mariam Faye Sow Sall di tàllal loxo euh, Mansour Faye kuréelu nit ñiy dund ak feebaru roño woo nguur gi ak kilifa yi ngir ñu jàppale leen ci wàllu personnel bu leen di toppatoo ci l'hôpital bi waaye itam jumtuwaay ci jamono joo xam ni coronavirus bi mi ngi lëmbe àddina bi RFM ci Ndar Géej Mohamed na Sylla RFM bitim xibaar yi bitim réew Georges maa ngi lay dellu nuyu. maa ngi lay fayal Papa Ngagne. dañ koy tàmbalee ca Mali foofu mu mel ni ku jéeg politique gi taral nañu xeex bi donte eh, daje nañu ak Ibrahima Boubacar Keïta. mouvement du 5 juin maanaam rassemblement des forces patriotiques euh, kuréel gi dajale ñi ñu duppee force patriotique moom nee na mbetteel la am ci ndajeem mi nga xamante ne moom lañ amaloon ak njiitu réew ma foofu ca Mali di Ibrahima Boubacar Keïta loolee tax sax ñu ne dañuy gën a taral xeex wi def ab manifester ajuma gi ñu dëgmal Kumba sanjan fay ci ay leeral gannaaw imam Mahmoud diko ci gaaw gi njiitum réew mi ci dibeer gi daal di dalal ay représentant bu coalition mouvement du 5 juin boobu lépp mouvement dajale ay kilifa diine ay personnalité yu bokk ci société civile bi waaye it yu bokk ci langue politique gi weerub juin ak léegi mouvement boobee euh, tax na ba ay junni junni doomu adama wàcc ci pépp réewub Mali ngir wane seen ñàkkub ànd ak nguur ga fa ne bu ñu sukkandikoo ci waa nguur ga xamle nañ ne yooyu lépp waxtaan dina tax ba euh, situation politique bi Mali di dund jàmm daal di dellu dellu si njiitu réew ma IBK moom ci bopam jappi gise yoyé ni ap ndam pour réewub Mali ci ap communiqué officiel buñu ñu fësal gannaaw boobu lépp daje ñu ngi xamlé né njiitu réew mi wane na bëgg-bëggam ñooñee bokku ci gouvernement d'union nationale ba mu digéné dina ko amal fofé ci Mali wante ana luñu ñu ci boobu lepp memorandum bu mouvement du 5 juin da dé jox njiitu réew mi di lèr ba leer mooy IBK wax naak ñooñee ne dina engagé ci wàllu woowee ap waxtaan ak majorité présidentielle officiel bi mu àndal ku jéggi mom ci walam geneen jangat la def ci boobu lépp gisee gis na ne njiitub premier mi ñom liñu li ñu bëggoon te ñu doxanuñ ko ci memorandum bi mu di njiitub jëwriñ yi ñu war a ak pouvoir yépp yi mu wara andal mu jóge ci ñom ku jéggi ngir réew li mëna a teguwaat ci yoon bu baax mom ku jéggi dem sax ba yëkëti baat di xamné ne lim bëgg mom moy njiitub premier tekki nombal tankam mo ne boobu lépp revendication booy xool bokkootul woon ci memorandum bi waye dafa melni yoy yooyu responsable mouvement 5 juin dañu bëgg a sen seen tey fas yéene nañoo sax ñaxtu ci àjjuma ji ñu dëgmal. samedi gi weesu Ibrahima Boubacar Keita daje na ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay farandoo maanaam majorité bi ci ndaje moomee wax nañ ko sànq nee na bëgg naa taxawal ab gouvernement ñoo nationale ngir engagé ay euh, réforme lan la ci ki fi nekkoon ay jamono premier ministre am di Moussa Mara naka la ko gisee jokkoon nañu ak moom ca Bamako moom njiital parti bi di Yelema. Le principe du gouvernement d'union nationale, je crois qu'il est demandé. Principe euh, gouvernement d'union nationale daanaka yàgg nañ ko wax ñëpp d' accord ci ñun suñu parti bi itam bokk na euh, ci lu mu proposé woon euh, naka noonu itam parti d' opposition yi gannaaw élection yi ñu def ci 2019 bi ku nekk xam daanaka desoon na lu bëri ci wàllu leeraay kon desoon na ci concorde bi kon opposant yu bëri jotoon nañ laaj kii di. Euh, président IBK mo ubbi yefi euh, su ko defee ñan ñi dugg ci gouvernement bi mom mi sa wax na ko ci discours ce juin bi loolu du problème danaka principe bi dal du problème mais fu mu toll ni dafa war a euh, matérialiser loolu ndaxte jot na recevoir ay opposants yu bari ak société civile mënoon na kon profiter ci loolu jël ay décisions comme nuñ ko ko lajé mu dissoudre kon assemblée nationale bi jëlee membre cour conseil constitutionnel fu ñu nek choisir premier ministre naka noonu itam kon créer gouvernement.

et hein, cela nous ouvre des perspectives encore plus, plus négatives en termes de sortie de crise. Georges gannaaw Mali dañuy dem ci Côte d'Ivoire. Hmm. foofu moom kenn ci jege ñaale Guillaume Soro yi ñu teg loxo ah, jabaram moo génn nag dina xarlu niñ ko jàppee. mu di jabaru ba député bi di Alain Lobognon moom parlementaire bi bokk na ci jege ñaale Guillaume Soro te ñu toll ci fukk ak juróom-ñett ñi nga xamante ne ba jamono ji ñu ngi ca kaso ba ñu ngi leen jàpp sax ñaar fukki fan ak ñett weeru décembre gi ñu weesu. Euh, premier juillet gi weesu nag la door ab xiifal RFI xamal ñu ne euh, soxnaam di Amira Lobognon demoon na ca kaso ba ànd ak ab médecin waaye moom rek moom mujjee dugg te bi mu génnee dafa ne boroom kii euh, borom këram moom jamono ji euh, néew na doole lool ndax grève de la faim boobee Alain Lobogno moom nag ñu ngi koy toppee lii di euh, fësal ay xibaar yi nga xamante ne du dëgg ak trouble à l'ordre public naka noonu itam atteinte à l'autorité de l'État kaddu yi tukkee ci Mankeur Ndiaye ci compte Twitter am moom ma fa toogal secrétaire général bu mbootaayu xeet yi ca Centrafrique nekk itam njiital MINUSCA def artu ne artu yi nga xamante ñu ngi jógee ci Sidiki Abbas bu fekkee ne attaqué nañ euh, MINUSCA ak euh, force armées yu centre Centrafrique euh, moom daal nee na loolu yenn wul te duñ kon nangu ndax ci gis-gisam Sidiki Abbas ak ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy njiital um, trois r moom bu lu ni mel amee ñoom la ñuy joxoñ baaraamu tuuma ci jafe-jafe gi nga xamante ne dana amee ci nooru ba dëkk ba foofee nga xamante ne ñee fay gën a doon ay victimes ay civil la ñuy doon Euh, ci France lañ jëm gannaaw premier ministre bi xam nañ ko gouvernement bu yees bi nag moom moo ci des. danañ ko xam euh, diggante juróomi waxtu ci ngoon foofu ca France ak 20 euh, heures njiitu gouvernement bu bees bi maanaam premier ministre bu bees bi moo ko xamle démb gannaaw bi mu reeree ak kii di njiitu réew ma foofu ca France di Emmanuel Macron Jean Castex ne gouvernement bu bees bi danañ ko siiwal altine gi leeral itam ministre de l'Intérieur. intérieur moom danañ ko nommé ci ay proposition waa Élysée nag maanaam ñi féetewoo ca njiitu réew ma nee nañ. Qui pour best ñaar fukki ministre daal ci xayma lay doon ak ministre délégué euh, équipe bu Edouard Philippe euh, ba woon nag euh, lim lim gaa ngi toll woon ci fukki ministre ak juróom benn ak ñetti ministre d'état ak fukki secrétaire d'état ak juróom-ñaar jeexale ko ak Algérie démb lañu ñu suul ñi nga xamante ne ñoo di ay combattants yi nga xamante ne ay algériens lañ woon te ñu jàppoon leen ca ndorteelu colonisation francaise ba seeni bopp nag li ca des daal moom lañ mujjee yóbbu ci armeel yooyee ñu ngi toll ci ñaar ñeent ay obsèques solennelles lañ ko ameloon ci euh, sëg yi ñu duppee El Alia bokk ci bi nga xamante ne moo gën a rëy foofu ci Algérie njiitu réew ma di Abdelmajid Teb te euh, Tebboune na ko Papa Ngagne Ndiaye. jërëjëf Georges Déthié Diop ñu dikk daal ci xibaar yi tàggat yaram. ñu dore ko ak wàllum Ligue des champions ak euh, format bi nga xamante ni moom la ñu indee lu jëm ci lu ñuy dippee final eight di quart de finale Ligue des champions 2019 2020 gi nga xamante ni nag ñi ngi ko jàpp fukki fan ak ñaar jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août ca Lisbonne waaye nag laata boobu huitième de finale yu mujj yi ñi ngi ko daal di programmé juróom-ñaari fan ak juróom-ñetti fan ci weeru août format gi ni mel itam la ñu nar a doxal ci euh, Ligue Europa gi waaye nag foofee euh, match yépp ña ngi ko nar a amalee ca Allemagne ñeenti dëkk bu ci melni ni euh, Cologne mi nga xamanteni mo nara dalal euh, final bi lu jëm ci tirage au sort quart de finalu Ligue des champions googee nak niki euh, fukki fan ci sulet gi lañ ko nara amal ci Nyon ci noné dan ci toftal tirage au sort demi final li nga xamanteni mom moy daldi permettre ñu daldi xam tableau finalu Ligue des champions gi niki nonu itam dañu amal tirage quart de finale Ligue Europa bi Taftal ci tirage demi finale. batay lu soxal walum Ligue des champions entraîneur bu Manchester City de Pep Guardiola Guardiola moom nag euh, nee na am na yaakaar bu baax ngir ñu mën a jouer li nga xamante ni moom moo di Ligue des champions gi ci jamono ji nga xamante ni ay fan rek moom moo daal di des ñu daal di am euh, résultat appelu club bi nga xamante ni defoon na ko jëmale ci suspension gi nga xamante ni tegoon nañ ko seen ndodd ci diirub ñaari at yoo xamante ni dañ ko war a toog duñu bokk ci benn compétition européenne ci fàttali nag fukki fan ak ñeent ci weeru février City dañ ko daal di tere woon mu daal di bokk ci compétition yooyu ci diirub ñaari at gannaaw plaindre coupable ni dafa daal di surévaluer ay contrat sponsoring ci période 2012 2016 ca noonee nag ci la City daal di defoon ab euh, appel ci googule dogal yóbbu ko ca tribunal arbitral du sport ca Angleterre daañu ndar kàpp niki fanweer ak ñetteelu bëccëg bi ak benn jongante képp bi war a dox ci diggante Tottenham ak Everton bu 19h jotee Manchester City niki démb nag dafa daal di ñàkk digganteem ak Southampton waaye nag Liverpool bu Sadio Mané moom nag daal di nay am ndam ci kaw Aston Villa ca Espagne dañu wëyal fanweer ak ñeenteelu euh, bëccëg bi niki tey ji ci ngoon Levante di dalal Real Sociedad FC Séville fas yéene ak euh, Eibar Real Madrid nag euh, ba léegi moom moo daal di nekk ca boppu classement wu Liga boobee daal di rawee ñeent poñ ka nga xam ne moo topp ci ginnaawam di FC Barcelone. Joao Félix di attaquant Atlético Madrid bi moom nag du mën a bokk niki ëllëg ci talaata ji jongante bi war a dox seen diggante ak Celta Vigo li ko waral nag moo di dafa cheville bi ca France Bordeaux nag daal dinay uh, fësal niki altine ji ci suba que ni benn joueur bu bokk ci effectif professionnel dafa daal di amee jàngoro gi di uh, coronavirus gannaaw nag ba ñu amee résultat gi moom joueur boobee dañ ko daal di uh, mettre en quatorzaine ñu jeexalee wàllum basketball ak NBA équipe bi di Milwaukee Bucks ñoom nga xamante ne nag ñoom ñooy leader saison régulière bi daal di nañuy tëj seen centre d'entraînement loole nag li ko waral moo di mbas mi di coronavirus même bu fekkee sax média américain bi waxul ñaata cas positif la ñu daal di nemmeeku ci googule club Gianni Antetokounmpo ak i naataangoom nag kon du ñu mën a entraîner laata ñuy dem ca Orlando niki alxames fa nga xamante ni nag fa la NBA bi nar a tàmbaliwaat fanweeri fan si weeru sulet lu ni mel itam nañu daal di nemmeeku ci Miami Heat mi nga xamante ni moom it ab ñaareelu joueuram daal nay amee jàngoro gi di coronavirus looleen tamit moom moo daal tax ñoom ñu daal centre euh, d'entraînement bu fekkee nag euh, kenn waxul joueur googu amee jàngoro gi kan la lu luñ ci mën a jàpp daal moom moo di ci cinq major yu Miami Heat la bokk franchise floridienne boobee nag xamle na ni dina wéyal di tester ay joueur am ñaari fan yu nekk ba keroog ñuy dem ca Orlando fa nga xamante ni fa la ñaar fukk ak ñaari équipe yi nga xamante ni ñooy amal playoff yi war a euh, daje. moo woon ci xibaar yi tàggat yaram yi ak Soda am xibaar yi eh, mbas mi di coronews ak Youssouf Bodian Sénégal lu tuuti rek a ko dese ngir mu yegg ci ñaari junni ak juróomi téeméer malade Covid 19 yu ñuy faj jamono yi diggante dëmb ak tey juróom ñaari fukk ak juróom ñetti cas yu bees lañu am di lu yees téeméeri cas ak li teg ñu doon gis fan yi paase waaye ba tey ni mu néew néew ñetti nit nañ ñàkk seen bakkan ci Sénégal ndax coronavirus. ba tax na léegi àgg nañu ci téeméer ak fanweer ak juróom-benn nit yu ñàkk seen bakkan bi mbas bi dooree ba léegi suñu réew kon juróom-benn la ëppalee Mauritanie mi nga xamante ni téeméer ak fanweeri nit ñàkk nañ seen bakkan bi mbas bi dooree foofu la 13 mars ba léegi réew ma am na lu ëpp ñeenti junni cas du Sud diggante démb ak tey am na lu ëpp fukki junni yu bees yu coronavirus di lu musta am ca réew ma mbas bi dooree ba léegi Afrique du Sud ñeenti junni cas rek ñoo ko tere am ñaari téeméeri junni cas coronavirus lu ëpp ñetti junni nit ñàkk nañ seen bakkan ca réew ma. Maroc moom dëmb ci dimanche bi nee na am na lu jege juróom-ñaari téeméer cas yu bees di guléet yu am lim bi ni mel ca réew ma li ko waral mooy nee nañu ay kaa yu bëri lañu gis ci ab usine bu nekk ca Safi. ba tax na sax dëkk boobule dañ ko ber jàppale ni Maroc am na lu ëpp fukk ak ñeenti junniy ñaar téeméer ak fanweer ak ñeenti nit ñoo fa ñàkk seen bakkan ndax coronavirus sa Australie moom it jël na dogal ber étam bii di Victoria li ko dalee tey bu minuy jotee la ñuy tëj kenn du génn kenn du dugg ci altine bi Victoria am na téeméer ñaari fukk ak juróom-ñaari cas yu bees yu coronavirus yenn ci cas yooyu sax ñu nemmeeku ko ca Melbourne ci ay immeuble ca Suisse ñetti téeméer ak juróom-benni fukki élève ak juróom fukki professeur la ñu ber mettre leen en quarantaine loolu nag ginnaaw bi ñu gisee ay cas yu bëri Covid 19. ci école bu njëkk bi ñetti enseignant ak benn élève ñoo ko amee beneen école bi ñeenti cas lañ fa nemmeeku suñu sukkandikoo ci ay virus bi day doxantu ci ngelaw bi ci ab lettre ouverte bi ñuy waaj ci semaine bi ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti scientifique yi nekk ci fanweer ak ñaar réew nee nañu coronavirus day doxantu ci ngelaw bi kon li ci bees mooy ay tuflit yu sew mën nañoo doxantu ci ngelaw bi su fekkee ne nag ngeen ci benn néeg bi wallante mën na faa am moo tax it gëstukat yooyu lee gën a sàkku ci OMS ñu gën a ñaat nit ñi ñu gën a bàyyi seen xel ci li ni mel la. lu bees ci Pays-Bas ñaar ñu doon liggéey fu ñu yaree ay bison di xeetu mala yoo xamante ni xaw nañoo niroo ak ay signeel ñoo amee coronavirus ci weeru mai loolu nag tax ba OMS jàpp ni cas yooyu lee mooy yu njëkk wàllante diggante mala ak nit lii di coronavirus. dogal bi gouvernement bi jël nag mooy tere bépp transport xeetu mala yooyu nga xamante ni kon dañ koy yar foofulee ca pays ba ndax seen karaw la ñu soxla waaye tamit ñëpp ñuy liggéey ci bërëb yooyu lee dañu leen dépister ngir xool ndax am nañu jàngoro ji wala déet lu ëpp fukki junni bison yu amee feebar bi faat nañ leen foofu ca pays ba jërëjëf euh, Youssouf Bodian mu aju woon ci Coro News euh, ñu daal di dikk nag euh, ci dossier politique bi aju tey ci wàllu politique ñeel mbiru premier ministre ci Sénégal ndax dañ ko fee war a delloo si am déet ndax nekkul woon erreur ci biñ ko fi doon jëlee Nafissatou Sylla président Macky Sall wet lolu ci doxalinam di xalaatu Abdoulaye Mactar Diop ci le grand jury Momar Diong Nak, di journaliste consultant Akitamit, analyste politique Ande ci xalaat né ne liñ fi poste premier ministre moko gëna yok l'itimé président de la république Faurek rek Mudjuk su mu juk di waxal Bopam. dama lay jox rek ben misal bi nga xamé ni ciowal petro ñing ko doon Aliou Sall jamono yoyu Boun Abdallah premier ministre nga moo jëloon kaddu def conférence de presse défendre président de la république défendre gouvernement ba nga xam ni président de la république dafa mel ni ku ñu ménager woon ci mbir mi waaye bi nga xamee ni tuddaat nañ coow bi bi enquête BBC bi am ba coow li jógaat boobu fekk na Boun Abdallah Dionne nekkatul premier ministre président de la république ci boppam moo mujj obligé yëkkati kaddu ci mbiru Petro-Tim ba mu ci waxee ak ni mu ci waxee gis nga coow li mu ko juraloon dafay exposé wu trop doxalin bi ni mel nag bu ñu sukkandikoo ci Mame Goor Ngom di journaliste analyste politique du def lu dul jural ko ay gàllankoor. bu ñu président premier ministre mom moy jog mom moy jog défendre ko dañuy wax sax naa mooy fusible président waré impopulaire mom moy impopulaire parce que mom moy jël di yenn jël di len risques mais tay dañu japp né Macky Sall amul lol té ñi koy défendre ñu ci bari dañuy ñëw amuñu sax légitimité pour défendre ko et puis amuñu ay argument yo xamné ni dafa solide lu ñu ci bari Momar Diong japp ni lenen tamit raxe ci mu yenn kangam yu am solo nekkon ci wétam te légui gisatu len ku ci melni Amad Amath ku ci melni Ousmane Tanor Dieng te ñaar ñooñu boo ci boolee Macky Sall boole ci Ablaye Bathily mi nga xam ni moom it taxawee na wet boole ci Moustapha Niass ñooy juróomi nit yi nga xam ni ñooy kàngamu Benno Bokk Yaakaar donc boo xoolee léegi di nga gis ni wax dëgg yàlla ay la yéen président Macky Sall desewul kudul ci juróom ña ma àndaloon Moustapha Niass loolu nag day firndeel wéetaay bi nga xam ni wéet na ko boo ci dollee nag suppression poste de premier ministre donc dafay exposer trop ñu mën a xalaat ñu ci boo doon mesure de impopularité Macky

jàmm te bu ñu ci suñu analyste politique eh, doxal boppam kese doonul lu ko mën jural jamm ci 100 pour Marseille Alfé Sengam Opalia seen AAD Abdou Ali Diop NCA Bank ak Home Choice Sénégal ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yi ñu ànd ci ak El Hadj jërë ngeen jëf borom fetal gi Moustapha Cissé El Pistolero ay balle perdue moo xëy di jógee ci yéen kaay ñu xëyandool ubbi l'observateur ay waxam yu dara réseaux sociaux yi di ay saaga yu ñaaw te ñu ne ci moom honorable député Moustapha Cissé Lo la jógee di ci daggal ay saagay nday Farba Ngom ak Yakham Mbaye mi ñu ne dañu ko tuumal ne moom Moustapha Cissé Lo dafa jalgati jiwu gerte waroon dem ci baykat yi l'observateur nee nañu loolu indi coow li ci ne jéem nañoo jokkoo moom Moustapha Cissé Lo ngir leeral yëf yi jéem nañu ba sonn waaye antul doom ja ba xamal leen ne saaga yu ñaaw yooyu ñuy dégg jógewul ci bàyyam Moustapha Cissé Lo ndax bàyyam moom ak loolee leneen li ñuy wax it ne Moustapha Cissé Lo dafay démissionné ci instance yu parti bi di APR des di doon militant simple l'observateur ne nañu loolee te doom ja weddi na ko ba mu set wecc journal bi tegal ñu ci ne waaye ak lu ci mën di xew porte parole national bu APR di Seydou Gueye xamle na ne secrétariat exécutif national bu parti bi di APR te président Macky Sall ko sant na commission de discipline ñu lijjanti mbiri Moustapha Cissé Lo ndax jëf dafay gàkkal deru APR ci réew ko ci Afrique gàkkal ko sax ci àdduna bi yëpp libération nañu waa Sénégal ñoo waaru ci wax ju ñaaw jooje ñuy dégg ci diggante kilifa yu mag ci état bi journal bi dem bay méngale APR ak parti boo xam ne fa la wax ju ñaaw sampe la Sénégal nañu ñett ñi mu di far Farba Ngom Yakham Mbaye ak Moustapha Cissé Lo li ñu dëkke mu di weranteeka weeranteeka wërante ak di xaxaranteeka daggalante saagay ndey soog bu rëy la def ci askanu Sénégal anki dina kay gis ne jëf ju ni mel du askan wi rekk ñoo ci amee ñëgg-ñëggi xol république bi ci boppam amu ci lu ko neex journaliste bi di di ñuy wax ci xët mu njëkk anki dina kay président de la république ci boppam boppam lay ne nañu dafay démissionné ci poste premier vice président bu assemblée nationale des di doon militant simple ci parti bi les éco nañu borom parti bi di Macky Sall wan ko ginnaaw moom Moustapha Cissé Lo tey jii ci la commission de discipline bu APR bi war daje ngir xool fan la ñu jëm ak nu ñuy def ak kii di Moustapha Cissé Lo les éco teg ci di ñu fàttali ñi nekk ci commission de discipline bu APR bi Abdoulaye Badji la Abdoulaye Daouda Diallo Benoît Samb Abdou Mbow Omar Gueye Awa Gueye ak ministre d'État Mbaye Ndiaye mi wopp Vox Populi gis ne Cissé Lo bu doon aw nag la ñu ne Macky Sall fotoñ na ko jatankoo jëm ak moom fa ñu ko war a lewatale ndax moo sàkk ci commission de discipline bu APR bi ñu daje nu mu gën a gaawee ngir lijjanti mbiri Moustapha Cissé Lo ministre ba woon di Mbagnick Ndiaye mel ne ku koy lijjanti ci xët mu njëkk Source A ne ma ngi fay di ko dugal bi ndax saaga ne Moustapha Cissé Lo kaa la ci biir kaa yi kaawa ngi beneen bu ñuy kaa ci réew mi ba mu juru kaa ci xët mu njëkk la Tribune mu di kaa bu suufus ndengleer Assane Sylla di président mouvement populaire pour l'émergence du Sénégal moo fa xëye ay leeral ci yéenekaay bi nee na kiy xambu taal bi ak di yokk ci xar mi karaw bëgg a jaxase askanu njagañaaweeg Pape Babacar Ngom Sedima moo di Bassirou Diomaye fay bu parti Pastef te dara taxul mu taxawee nu ni mel lu dul bëgg doon dara ca commune bu njagañaaw moo tax mu bëgg a tëgge askan weeg Babacar Ngom Sedima jaxase leen si la bu ñu jiitalee dëgg ci yëf yi du ci am te réeroo gi ci jotaam dina am saafara mu ne dëgg gi mënuta weesu service su ci mel ne cadastre ak urbanisme génn xamal nit ñi ne Pape Babacar Ngom Sedima suuf samu yor ca Ndengleer sàcc ko wuruju ko njublangu ko mi ngi ki kayit yu wér te wóor yu wane na li mu am ci yoon la ko amee Assane Sylla ne te Pape Babacar Ngom li muy naa la ko nësër bu sottee askanu Ndengleer ak jiñaax ñooy njëkk a gis njariñ li bëgg intérêt bopp sa bopp warut a tax Pape Bassirou Faye ak ñu mel ne ñoom xëpp suuf ci projet bi wala di di gàkkal deru Pape Babacar Ngom ginnaaw coowal suuf loolee journal Grand Place ñuy yëgal leneen coowal suuf lu métti ci réew mi gile yoon ca commune bu yenn la journal bi nañu ñenn ci askano ñooy tuumal maire ba ne Colline Sacré ba ca yenn la bëgg a dagg def koy pàkk coronavirus bi far dagg pàkk ci dëkk bi ba dëkk fi journal Source A mi ñuy xamal ne fa mu jëm ñun ndox amu fa ne ci ñaari fan yii ñu weesu juróom-ñetti doomi aadama faatu nañu ci réew mi ndax coronavirus ak ñeen fukki kaak juróom-ñett yoo xam ne seeni borom sonn nañu ba nekk Sowetaas libération nañu fajkat yi ci feebar bi mu di prise en charge médicale ci wàllu covid 19 bi fa la xam lee ne ñi coronavirus bi faat ci réew mi téeméer boo ci jël juróom-ñett fukk ak juróom yi maanaam yi dañoo yeex a yegg l'hôpital pajum coronavirus beeg artémisia gi ñu ci doon wax te ba léegi déggaatuñu ci dara l'observateur xëy na dañu wax li tax ba garab googee di artémisia jóge Madagascar yegg si ci réew mi te ba léegi fajoguñ ci dof du wér fu ñu ko déggee xel dem ci mbër mi di Eumeu Sène ak waa këram di écurie Tay Shinga léegi ko nañu otop bi ñu sàccoon ak coow li ci am compliqué ci ñoom Eumeu Sène ndax ñoo nga ciy dégg waxi boom doomu aadama mu di meurtre autopsie bi ñu def ci ndem si Yàlla Ibrahima Touré Les Échos nee nañu dafa gën a dugal ñoñi Eumeu Sène yi savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kenkeeri AAD Abdou Alima Diop NCA Bank ak Home Choice Sénégal ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. yéen kay mbokk yi yéen a ko jubbantil seen bopp Mouhamed Ndiaye la ñu ci àndal ah, ñu koy jaajëfal bu baax dikk dal ci gis-gis ah, gis-gis ponk bi xam ngeen ko mu ñeel coowal ah, dàquk Moustapha Cissé ci parti bi di APR ci noonu nag dinañ ci ànd ak professeur Moussa Diaw nekk professeur de sciences politiques ci université Gaston Berger bu Ndar ànd ci ak Assane Samb di xeltukat ci wàllu politique jiite yéen kay bi di journal Rewmi Quotidien bu ñu jàppandee ñu nuyu njëkk professeur. Cheikh jaw ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. ñu ànd ci ak asan Samb Assane maa ngi lay nuyu. maa euh, ñu tàmbalee waxtaan bi ak professeur Moussa jaw euh, li nga xam ni moo xew ndax mënoon nañ ko xaar gannaaw bi nga xamee ni dégg nañu euh, saaga yi nga xam ni tukkee na ci Moustapha Cissé Lo te mu tas ci internet bi ndax dogal bii nga xam ni dégg nga ko ci lu ñu mënoon a xaar la. waaw mën nañ ko xaar ah, mën nañu xaar dogal bi parce que situation bu ñu nekk bu nekk ci APR. te euh, message yi nga xam ne diffusé nañ ko euh, warul parce que euh, Moustapha Cissé Lo kilifa la kilifa la kilifa nag dafay wax waxu kilifa même su amee lu ko naqadi am na yeneen instance yu mu ko mën a réglé waaye nag lii du lu bees ah lii du lu bees da dafa passionné ci lu muy def nitu ku franc la dafay lu mu ñëw ci moom rek da koy da koy wax mm-hmm. mais situation bi euh, problème la malaise la ko waxe sax ci bir parti bi te malaise bobu nak euh, bare na lu ko lu ko lu ko soxe mhm. source malaise bi malaise bi ma ngi jóge ci euh, parti bi kenn structuré wu ko parti président bi la te président bi cumuler fonction présidentielle à fonction parti mhm. te loolu nak bëgg nek arbitre loolu nak difficulté lay indi mhm. loolu day day day day wane ni moi mo nek en première ligne parce que il faut cumuler euh, partem en même temps mon équipe président de la république mhm. euh, beneen aspect bi euh, parti bou relativement jeune là, hein, parti euh, APR mhm. relativement jeune là histoire am Yagoul, melul comme PS melul comme PDS histoire am Yagoul, c'est que structuré wu c'est un parti bu nga xam ne dafa agrégat ay nit ñu bari ñoo ci dugg euh, yaakaar euh, dugg doon dimbali euh, Macky Sall boobu temps moom dañ ko marginalisé woon ci ci PDS gis nañu jafe-jafe yu mu amoon amuñu nag temps pour restructurer parti bi. Mhm. amuñu temps pour organiser ko. d'accord loolu nag moo moo mooy indi ay difficultés yi. Mhm. yu ñu jonkontool léegi. Assane te difficultés yooyu pour ñu saafara ko. dana yàgg. jërëjëf musa baal ma dina ñëwaat ci yow euh, ma ñëw ci Assane Samb Assane ndax euh, daan yu toll nii mën na mën nañ ko yemale ak euh, saaga yi nga xam ni dégg nañu ko ndax lu mel ni yow tam xaaroon nga ko gannaaw bi nga déggee saaga yi. waaw xaaroon naa ko ndax c'est vrai que yàgg na di déraper daanaam di génn gaam ni ko xale yi di waxe ñu ko ciy bàyyi ñu bari sax dañu foogoon ni intouchable la kenn du ko laal. mais lu ëpp tuuru nag lu ëpp tuuru eh, te kenn koo ni du ma la topp fa ngeen jëm soriwul mm-hmm, mm-hmm. moo tax eh, li li xew xew ndax olof da ko faral di wax ku boot xal sa doxin ñaaw mm-hmm. eh, waaw ku boot xal te dañuy wax aussi ne dox dox xel mi du teey donc mbir yi il fallait que mu àgg am fa mu teer ndax yaa xam ci boppam ni ngi commencé mer moom itam ci li daan défendre kese te kenn du ko défendre donc loolu moo indi situation bi mhm. je pense que professeur wax na ko effectivement parti bu jeune la APR ci jeune mu jeune ba pare euh, gàddul nguur mu diis mhm. mu war a génn ca nguur ga xam nga euh, boo ko xoolee ñaari mandat yi mu ngi waaj euh, mhm. def na waaye nag entamé nañ deuxième mandat kon loolu li mu tekki mooy ku si nekk ci ñoom danaan waaw bu fi Macky jógee ku fi toog ndax ku nekk yaa ngi xalaat loolu

Mhm. parce que situation fi jëlee Moustapha Diakhaté mhm. situation boobu moo fi jëlee Sori Sori Kaba mhm. situation boobu moo tax ñuy attaqué Amadou Ba situation boobu moo tax ñuy attaqué ministre du commerce maanaam guerre de gestion bi moom moo fi nekk di ku nekk nag daa am noo koy dundee ci ñoom d'accord am na ku ñu teey mhm. am na ñu dal mhm. am na ñoo xam ne boo leen xasee saaga leen garaawul am na ñu koy kii ci suuf waaye am na ñoo xam ne dañ koy wane ci kaw d'accord euh, Assane baal ma mu ñëwaat ci yow ah. euh, professeur Moussa Diaw boo déggee kàddu yi nga xam ne Assane Samb wax na ko mu mel ni guerre xëccoo la ci succession ak croissance euh, wax na fàttali na mbiru Moustapha Diakhaté fàttali na lu bari ndax kon coowal Moustapha Cissé loolu rek mënuñu ko yemale woon ci xeexu politique ci seen biir ñu atte leen ci seen biir ndax yaakaaruloo di dogal biñ ci jël ëpp na ci ñoo xamni dañu japp ni xexu biir la ñom ñom ci seen biir. oui mais yaaka ni xexu biir la xexu euh, xeexu biir la hein, euh, rivalité la rivalité la ci entre leader yi seen mm-hmm. biir euh, mom la doon wax rek ni parti politique bu ñu formé ñëpp ñëpp joggé fu nekk luñu joggé ñu ci bari amuñu amuñu niveau amuñu formation xamuñu sax lan mooy politique parce que dañu ñëpp ci bari dañu yaakaar ni yow soo defee politique rek da ngay wut fa ngay enrichir fa nga amee. na nga mané eh, tedd euh té lool nak du loolu par du du du loolu moy activité politique politique ku koy def day fekk da nga am da nga am ngay gëm-gëm da nga am gëm-gëm da nga am idéologie da nga am ay valeur da nga ay principe da nga am xam-xam ba nga xam ni mën na la permettre nga rendre service sa état nga rendre service sa citoyen lool moy engagement politique mais nak ku ba nga xam da nga bëgg enrichir Euh, euh, feneen ngay dem mais mhm. soo gisee lii soo gisee lii ci parti politique parti politique yëpp am nañu problème mais bii parti parti majoritaire la c'est-à-dire parti ba nga xam ni. Mhm. moo nekk ci ñoo yore ressources yi. Mhm. ñooy partage yi ñooy joxe pouvoir yi. fokk noonu ñu de loolu mu am ay enjeux ku si nekk di rivaliser wu sa bopp pour am position de pouvoir pour am accès ci ressources yi pour mën ko distribuer ay certaines clientèle loolu mooy moom mooy moom la parti yi fonctionné ci Afrique war nañ ko seetaat.

d' accord euh, jërëjëf professeur Moussa Diaw bu ma dellu see ci Assane Samb assan yow yaa ko junj léegi yaa ni xeex bi moom mi ngi ci biir parti bi ndax euh, euh, kan mooy doon président gannaaw bi nga xamee ne mi ngi ci daanaka mandam bu mujj wax nga ma fi si exemple ñu bëri ñoo xam ni daanaka am nañ ci ay jafe-jafe te ne nga jafe-jafe du fi yem ndax yaakaaruloo nag loolu indi lu doy waar ci biir parti APR buñ ko jàppoo nii ñu jàppee ak si Cissé Lo ndax yaakaaruloo mu mu mu ëpp leen loxo. justement euh, euh, Pape xam nga dañu jël leçon ci li xewoon mhm. Ablaye Wade dund na fi situation li ñuy wax le syndrome du PDS situation bu amoon na PDS ñu dundaat ko biir APR waaw te PDS sax APR parce que APR day fonctionner comme genre mouvement de soutien succès euh, mouvement de soutien autour de Macky Sall. Mhm. day mel ni mu benn mouvement de soutien rek ba ñu def benn espèce de daayira rek boo xam ni dafa waroon Macky Sall alors boo ko def boo ko doxalee sa parti noonu après xeex bi par force day am mhm. day jóg day metti te loolu loolu mooy li nga xamante ni mooy am te bala nga koo xam dëgg dëgg dëgg Macky Sall génn ci pouvoir bi mhm. kon da nga yaan da ngay foog ni kenn loo di nga gis loo xam ne mosoo ko gis da ngay mhm. foog ni après mosul am parce que affection li ñuy wax ci société affection sociétatis maanaam nit ñi bu ñu àndee ñu ñu am cofeel ànd ci seen biir cofeel boobu moom moo amul maanaam parce que pour mu am il faut ñu bâtir ko il faut ñu construire ko sur des principes maanaam ñu voulons nga structurer ce mouvement organiser ko xam nga Obama dafa ñëwoon wax ko mu ni Afrique dañu soxla soxlaa ñu ay hommes forts ay institutions fortes lañu ñu soxla. Mhm. institutions fortes yooyu du état rek de. Mhm. ci parti politique yi lay commencé. loolu la nit ñi di fàtte. dañuy fàtte ni ni nga gérer sa parti boo boo demee au pouvoir noonu ngay gérer pouvoir.

Mhm. Euh, mais nag normalement normalement euh, su ñu dàqee nit ci partem da wara perdre le mandat non bu dee mo moo démissionné wala bu féké dañ ko dàq non ko dàqee su dee su ñu démissionné wala ñu dàq ka fay perdre le mandat ah d'accord normalement normalement da ko wara perdre. non man nak dama euh, japon ni bu féké moom mo démissionné ci coobaree bop ah, wala mu dem ci benen wala mu dem ci benen parti. soo génnee ce parti parce que ce parti moo tax ñu élure la. waaw soo ko génnee soo ko génnee waru waru waruloo garder. sa mandat asan Assane yow non nga ko gissé asan Wow, je pense que les textes sont clairs hein. bu ñu mhm. la bo, boo démissionné ngay ñak sa mandat. ah d'accord, accord oui. mais buñ la dàqee doo ko ñàkk. D'accord. D'accord, d' accord me ma professeur Moussa mu s'il vous plaît. Oui, mais dama ni so fekkee ni. Euh, mhm. dakh nañu la ci ci ci dakh nañu la ci parti. Euh, euh, nga garder mandat bi mais ban ban sens la amul ben sens. Mhm. amul amul ben amul ben logique. non surtout surtout euh, aussi ay plainte nek ci sa kaw. nga xamni yëkëti sa immunité mais pour wane nak ni way lu mu waxoon ci lu mu tëddee ci ci Obama ni Afrique ay institution yu forte le bëgg. Mhm. mais il faudrait aussi que ñu am ñu am ay ressources humaines ay nit yu xamni xam ni am nañu autonomie diriger institution yoyu mhm. euh, lolou moy problème bi dafa am écart entre euh, institution yi problème démocratie hein da ngay tek ay ay ay tëral ay loi tek ay institution mais doo ko tëral doo ko tëral mhm. wax séparation de pouvoir mais dans la réalité nu ñu doxalee politique moo am problème. dafa am écart entre institution yu teg yu ñuy teg ak nu ñuy doxalee pratique yu ñuy def. jërëjëf ànd ànduñu. loolu nag il faut que ñu xalaataan ko a et puis problème aux parti politique en Afrique. surtout au Sénégal. jërëjëf professeur Moussa Je sais yow êtes là ak yow euh, ma ñëw Assane Samb Assane yow wax nga ko euh, gannaaw bi assemblée nationale ba un ku ni tam, ay avez mi euh, lever immunité parlementaire am du vous lan nga ni fay un assemblée nationale waaw Pape boo analyser situation bi Moustapha Cissé mag la te am na maturité politique de. Mhm. waaw maanaam dafa mel ni dafa bëggoon jënd. Mhm. <laughs> waaw da moom xajatul woon APR neexatu ko woon nekk ba mu fa nekk neexatu ko woon. Mhm. te boo seetloo dafa def tout pour ñu pour si. xëy na am na yeneen projet politique yu mu am. d'accord mais mais léegi ñoom ñaar ñoom ñaari Moustapha yooyu lan lañ mën a yàqal APR muy Moustapha Diakhaté ak Moustapha Cissé ndax jàpp nga ni ah, mën nañu yàq dara yàqal leen dara ñoom. ah bari na bari na mën na yàqal APR waaye daanaka mënatuñoo yàqal Macky Sall xam mhm. nga Macky Sall moom la mu bëggoon am na ko. Mhm. falu na toog na ñaari mandat mhm. waaye nag mën na yàqal nag APR. li nga xam ne mooy avenir APR kay toog ëllëg kooku la ñuy yàqal. d'accord d'accord te commencé nañ ko. jërëjëf eh, jërëjëf eh, Assane Samb eh, nekk xeltukat ci wàllu politique jiite yéenekaay bii di journal réew mi quotidien di gërëm itam professeur Moussa Diaw nekk professeur bu science politique ci université Gaston Berger mu nekkoon gis-gis ci xibaar yi digg gi ak radio Futur Média ñu leen di jaajëfal bu baax di leen jox daje incha allah ci yeneen ci beneen jotaay xibaar bu ci yàlla àndee bàyyi leen ak soxna Aminata Ndaw mu dikk ak yéen ci communiqué yi ak tàgg yi jërë ngeen jëf. Choisir votre gamme de